Mamatar euh, tey jii nga teew ñuy gërëm baax Jacques nag ne ko dama bëgg micro Mamatar tey ñu yokk ko ba mu sës maanaam ñëpp dégg Mamatar Mamatar fan yi man dama déglu benn rajo à la surprise générale ma dégg ngay tudd benn tur rangu man xawuma ko nga ne woon na li muy def ci wàllu yaramam di ko simmi ci ñàkk teggin ak ñàkk kersa ci doxalin réew mi yoon Dakar tere ba nga ni woon loolu dinañ ko jéem a jubbanti nga jóg ci mbir mi nag mu jaam ay rebondissement ba egg ci benn niveau moom mu yëkkati ay kàddu la tuumaal ci loo xam ne du dëgg tegu ko fen lu du ñàkk kers ak ñàkk teggin tey jii nan ngay dundee loolu ma Matar Gueye ci en tant que koo xam ne tey ci wàllu diine min nañ ko mais aussi tamit ci côté taxawu askan ci wàllu jikko nan ngay dundee loolu. xam nga nii askan bi yëpp muy yow muy saa muy euh, bu ak ñaari soxna yi. tombé ci réseaux sociaux yi moom muy def promotion soirée mhm. ñun itam noonu lañ ci tombee rek. parce que réseaux sociaux yi carrefour la moom dox daje waaw mu def affiche am affiche bu fouté ko de ce slip ak ben sagaru soutien. Mhm. néna na fay def soirée promotion euh, soirée bu ñu wax Rangouzeur. Mhm. entrée deux cent def ben numéro de téléphone ne info line pour s'inscrire fi ngay woté ba paré à l'extrême droite de l'affiche mu di def. le lieu est tenu strictement confidentiel. <laughs> lieu bu confidentiel xana la nga fa nar def du jam mhm. nonu ni nga ci tombé ñu noonu lañ ci tombé. toog nag di déglu ndaw si toogaat vingt quatre heures après dellu siwaat mm-hmm. ci réseaux sociaux yi mm-hmm. ak ay audio ak vidéo mm-hmm. te ne bu gën a yéeme di def loolu tubaab di wax exhibitionnisme sexuel euh, boole ci nag un langage ordurier et pornographique dama bëgg ngay wax ci pour ñu seetaan gën a comprendre moom li mu doon def boole ci daal ay kaddu yu ñàkke teggin yoo xam ne teggin mayewul ñu di ko répété fii ma ne nag kii nañ ko may bët ndax xam nga lu tax soirée ñun intéressé bu yoboo mu def ko deux cent mille comme c'est le cas wala un million ticket intéressé wuñu bu yoboo mu am ay kilifa yu ñàkk fayda yu fay dem inscrire woote infoline kilifa yooyu entre risque bu rëy la jël mm. xanaa xamuloo boo wootee infoline la preuve chaque fois bu procureur bëggee euh, traqué benn samba boy bu def toj-toj. la la la ñuy jëkk a def. Mhm. brigade de recherche. dañuy dem ci opérateur de yu mobile. ba ko jox plus mhm. moo xam bu commencé soixante seize soixante dix wala soixante di sept. def réquisition pour ñu xool ca serveur ba kii kan la woo ak ku ko woo ñuy topp ci piste yooyu nag di fexe ba jàpp ko. Mhm. kon kilifa ya ñàkk fayda woote ci infoline bi jël nañu risque bu rëy. ndax ñun capté nañ ci onze kilifa yu woote. ah bon dem nañu. ca soirée ba wala demuñu. woote nañ ñoom. pour inscrire. tool ñàkk mba am na ci ñaar ñoo xam ne. Eh. ku leen gis ak seen seen seen eh, nu mu tuddee tiitaru. Ah. waaw xale yi dañ leen war a yar. te fekk yaa yàq xale yi <laughs> ñooñu bu ñu moytuwul di di nekk ci ginnaaw rangu di ko ruux muy se bu ñu moytuwul. Ah. la ma defoon le treize novembre euh, daaw. dem ca ali Ngouille Ndiaye ne listu góor jigéen yaa ngi nii. bu ñu moytul ñoom dinañ leen def loolu. tey jii alors léegi nag Penda dina am preuve saa yee sànq da dañuy werante ba mu door xeer yi rëy ma ne ko ji nga ràngu nii. ay léegi nag ba ñu gisee affiche bi noonu ñun toppatoo ñu soirée. ça ne nous intéresse pas. nee na c'est privé. bu yóbboo ñoom ñu tëju lëlu ànd fa ak Iblis ak Firawna des def seen i ñaawteef. lu waay rendi sa loxo lay nag seen digganteel yàlla intéressé wuñu li tax ñu yëkkati kàddu xam nga yow muy sa papa sa maam suñu maam ñun ñi ñëpp ba jamono dee baax bu amee ay féewuloo yu daan am ca kër yeeg famille yi dañu ko daan régler ji ca penc ma dañuy woo les sages du village ñu laajte bu dee ñaari sëy yu yëngatu la xol ndaw si ndax moo tooñ wala ku góor ko teeñ bref ñu def ci ay tànk yu rafet ba jàmm dellu si loolu cosaan la fii ci Sénégal moo tax Senghor di wax naan que la la caractéristique du Sénégal c'est que le dialogue se fait sous l'arbre à palabre nee na daal mandargawu bëgg jàmm askanu Sénégal mooy lépp ci penc ma lañ koy réglé loolu mooy li amoon waaye penc mi léegi ci 21 et siècle bii dafa toxu dafa moderniser wu ndax jumtuwaay yu xare yi nga xam ne ñoom suwaay bu maîtriser nañ ko. tax na penc bi léegi Facebook penc la YouTube penc la WhatsApp eh, penc la. Instagram penc la et cetera bari nañ mooy des milliers de personne ñoo fay daje di waxtaan di saafonte di échanger te expérience. te penc penc xam nga dama danger il faut ma dog la foofu. Hmm. bi defee li mu def ba pare ñu ñaawlu ko ci jëfin. mom dafa yëkkat ay cadeau tontu la. wa dama lay wax li li indi cadeau yi la la. mais dama bëgg nga ñëw ci cadeau comme dañuy jouer avec le temps. d'accord dama ñëw ci cadeau ak cadeau yi mu yëkkati ak yow ban taxaway nga ci fassiyene am. cadeau yi jogul yëkkati ko. parce que ñu bari da leena a daf may tontu man la tontu. dafa am luma wax. Mhm. mu doon fayu. motax tax nga xam lu waral mu yëkkati ay cadeau ah, je je vais faire très vite. Mhm. alors légui mhm. penc bobu lu ñëpp bokk la.

youtube ak ñoom ñëpp neen lii dañ ko fi aaye ba nga d'accord nga validé nga daal di bokk nekk membre kon tubaab yooya créer plateforme yooyu donte le bokkuñu ak ñun cosaan ak culture ak gëm-gëm ñu ngay sàmmoonte ak sa credo universel nga xam ne démocratie monde yëpp ànd nañ ci mu di votre liberté s'arrête là où commence celle des autres alors mooy yow say sañ-sañ ak say yelleef fa muy dakke mooy fa sañ-sañ ak yelleefu keneen tàmbale rangu ñëw nag ne demain dana jël la ma moom ak li ñëpp moom bés bu ne rek muy saturé di submerger réseaux sociaux yi ak publication yu gën a ñaaw les uns looloo tax Jamra réagir mais c'est pas pour la soirée qui ne nous intéresse pas alors naka la ñu réagir yónnee naa léegi euh, euh, vidéo bi ça fait à peine neuf minutes vidéo bu gàtt la jox naa ko saa après nga xool ko ni ma réagir lu gàtt la dama ni ndaw si gis naa muy taafantoloo pour des promotions soirée naan man de sama yaay rek laa am ma ne ko waxoo dëgg ndax ku am ku fonk sa yaay doo toroxal jigéen ndax nga taxaw ci diggu penc mii nga xam ne penc virtuel la des milliers de personnes ñoo lay gis nga futteeku yëkkati kàddu yi ñaaw di dégrader l'image de la femme di déshonorer di toroxal jigéen te sa yaay jigéen la kon boo ne man sama yaay laa am moo ko dëgg loolu moo ko metti ma ne kon nag ñun Jamra dinañ jël li ñu yoon may te yoon mayoon en 2016 ci soxna Déesse Major moy puisque l'article 318 du code pénal waxna wax yi outrage public au bon mars public moy fu mbolo di dajé rek muy Youtube ak muy Sandaga ak muy plan de l'Indépendance dinañ jël tamit li ñu may ci article 324 code pénal muy attentat à la pudeur ndax yi ngay def amna ñu mu choqué dinañ jël yooyu xastewuñu saaguñu dem fa mbaxane nekké ben ci procureur ne ko la fi dess major defoon am na ku def lu raw lolou mo ngi ni loolu rek la wax ndaw si dal ci ngon sa mu defar ma ben vidéo bo xam daf ko pobar kani ko lingom ko si daxaar ne ma waaw paa boobu nee du tudd sama tour <laughs> ñu kay laaj lo xam ci rangu mu naan accam man tam manela itam te ma ngi koy yegal ne te nako ñepp xam nak day sàmbalan maag moom xamante nañ de gëlam laa woon fii daw fi jóg ma daan ko def yàkkal ay ceebu jën defar ba mu baax defar ko sama njari soow présenté ko samay copain góor jigéen loolu la wax ma ne ah yow nag am nga ñaari plaint benn bi mooy bi ma wax sànq outrage public aux bonnes mœurs fii diffamation et injure ba ma waxee loolu ay jege ñaaleem. waaw bu ko topp di ko mën a saway soo leen amee loo leen wax. wala moom bu amee lu mu wax. na ñëw ca kan kanamu procureur li mu wax mu confirmer ko. Ah fa laa mm. donc voilà ce qui